ñu dëgmal ay élections yi ñuy tabbee ndaw yi teewal askan wi ci pencum ndaw réew mi muy législatif 2022 coalition bi di naataangi askan wi ci njiital Cheikh Alassane Sène Taare Yàlla ñoo ngi doon amal doxu nemmeeku ci gox yeeg gox-goxaan yi niki tey nag ñu teere si fii ci Grand Yoff seet si fi benn responsable politique muy wuyoo ci turu El Ba nekk doomi Grand yoof nekk ku askan wi jox bopp ci bile gox mu rafetlu bu baax teewaayu Cheikh Alassane Sène njiital naataangi askan wi ak mboolem délégation bi mu àndal waral mu biral yile kàddu ma man li ma dugal ci politique bokk na ci xëy na dimbali doomu aadama loolu mooy politique ak taxaw pour yàlla mën la defal loo xam ne di nga mën a dimbali ñeneen ak ñeneen ak ñeneen fii nag sa kër la ndax yaa ngi ci yëngu yaa ngi dimbali doomu aadama yi tey boo ma wooyee ni ma El Hadj ma ne la naam nga ni ma dama la bëgg setsi dama ciy kontaan ma yëgal ko ñi ma ko war a yëgal ni leen ñëw leen ndax am na ku may seet si te kooku kat romb na gan ndax sama xarit la ba pare sama lépp la donc moom buy ñëw a ah, am na ñoo xam ne mënuñu ko ñàkk a teewee loolu moom moo tax ma woo leen di leen gërëmit jigéen ñi aw ma seen fay maa ngi leen di gërëm li ma leen mën a wax rek mooy cheikh bi boo leen ko jàppee mu jàpp leen te kat jàpp leen ko ku mën gan la ku xam nit la ku mën a teral nit la fi nu jëm nag jaane wax na ko benn boo ko yaakaar la nekkoon jàppale Macky Sall présidentielle yi mu am 24000 voix fii Macky Sall mosul gagné fii centre de vote bi bi ma ci duggee la gagné di bureaux de vote yëpp mhm. ñu koy sant yàlla nag kii lu mu soxla ci man war na mën a yomb ndax sama mbokk la mbokk nag mooy alal maa ngi ci ginnaawam dinaa ko jàppale. te xam naa ni wóolu naa leen te fu jëm dañuy dugg biir Grand Yoff Grand dañ koy dugg ndax jot na ñu dugg ko maa ngi leen di gërëm nag maa ngi leen di sant bu baax a baax xam naa ni jot jafe na ndax xëy na bu jógee fii am na fu muy dem damay daal gàttal di ko gërëm di ko sant ci ñëw bi mu ñëw maa ngi leen di gërëm yéen ñëpp jërëjëf. ci tàmbalay kàddoom moom Cheikh Alassane Sène comme ni mu koy defee saa su nekk sant yàlla subhaanahu wa taala julli ci yonent bi ngeen gi mbindeef sangub sang yi biral ak cofeel ak yeneen bi nga xam ne moom moo waral mu sol dàllam fekk si waa Grand Yoff rawatina kii di Elhadj Ba ak mbooleem ñi mu àndal ak jëflante gi nga xam ne moom la na ma jëflante ak ñoom bismillahi rahmaani rahim wa afdalu salaati wa atammu taslim ala seydina wa mawlana wa xabibana muhammad sallallahu alayhi wa sallam Eh, maa ngi wax asalaamualeykum mbooloo mi di jiital ci nuyoo bi imaam Touré di di ko sant ci kàddu yu am solo yi mu yëkkati eh, suñu ko nuyoo nuyu nañu mbooloo mi yëpp waaye dañuy nuyu professeur aussi ci kàddu yu am solo yi mu yëkkati di la nuyu sëriñ bi taal di nuyu ñi wax ci turu jigéen ñi d'abord soxna Ndey Cissé ensuite Joséphine maa ngi leen di nuyu bu baax di nuyu nag samay mbokki bopp ndax El Hadj Ba mii ak Alsan mii seeni waajur ak sama maam ñoo bokk ndey ak baay ma walbatiku ko amaat fi beneen cër mooy waajuram wu góor muy imaam alsaan Ba te ngeen xam ko bu wér moom lañ ma tuddee waajuram wu jigéen Adja Rama yan suuf sedd ci kawam bëggoon ma lool yemalewu ma ak kenn kër gi miin naa ko ndax daan naa sol sama dàll ñëw seet si sama turandoo tëju ak moom ñoom elaaj Hadj sax duñu xam ne maa ngi ci kër gi ak ñoom Alsaan mii samay nijaay ñu bëgg ma nag fonk ma lool ba yemaluñ ma ñoom tamit ak lenn bi mu jotee yëkkati projet bu mel ni war a dem ci législative yi ñu jëm dama waxtaan ak ñoom yàlla yombal ko nag ñu décider ànd ak man ci naataangi askan wi ñu yëkkati malay sant El ci taxawaay boobu nga am muy taxawaay sax bi war waaye nit gis na li war ba tey te defu ko ndax sa jarbaat yëkkati mbir li la war rek mooy gunge ko ak ñaagal ko yoon bi ak niital ko te loolee nga taxawee professeur mi ngi junj léegi ci wax ji ma rafetlu lool kàddu yi nga yëkkati parce que réew mi fi mu toll li mu laaj mooy nit ñi dal li mu laaj mooy nit ñi dem wekku ci jàngale mag ñi te mag ñi ba laataa ñu fiy jóge wax nañu ne Sénégal ñoom bi ñu ñaan suñu borom mooy Sénégal jàmm Sénégal lu te professeur wax na dëgg ñi ngi jëm ci naataange ci réew mi waaye nag soo amee gan gu war a ñëw ci yow dangay waajal sa bopp waajal sa kër yàlla li nga xamante ne yëg nañu ne war nañu ko defal suñu réew muy jàmm ju mat sëkk gu ànd ak naataange ci ñun ñëpp ci suñu ay xel ak suñuy xol suñuy jëf suñuy demlante loolu su fekkee ne gan gu war a ñëw ci yow la da ngay waajal sa bopp ndax yàlla yàlla dafa élégant le le Seigneur il est élégant te dafa bëgg aussi jaam yi mu sàkk bëggul ñuy ñaxtu dafa bëgg ñuy am yaakaar saa su ne ci moom te yaakaar googu la ñu war a lal jamono ji ñu nekk ci dëkk boo xam ne yàq-yàqu jikko yi foo ko natt weesu na ko li ni mel nag waral mu sol dàllam fa seenee taxaw temm ngir ñu delloosiwaat jikko yi fi maam yi bàyyi woon yar ak i teggin yi fi sunu maam yu baax yi bàyyi woon ngir ñu mën a suuxalaat réew mu naat lépp lalu ci naataange waaye ci yar ak i teggin yu ñu jëmmalaat li ni mel mooy ay soññeem moom Cheikh Alassane Sène soo leen seetloo mbokk yi xuloo ak xiiroo ak ŋaayoo dafa bëri ci réew mi kenn ku ne ci ñun yenn saa ni réew mi tëddee nga am sa téléphone làqatu sax déglu benn audio wax bu ñaaw bu ñu wax ci keneen ñun ñun ñëpp suñu téléphone yi léegi te du Sénégal bi ñu Cheikh Ahmad Bamba bàyyil du du Sénégal bi ñu Seydi Hadji Malick du Sénégal bu ñu jàngu bi bàyyil ñoom mbokki ñoom Joséphine di suñu ay mbokki aussi du Sénégal bi fi Cheikh al Islam bàyyi du senegal bi fi bàyyi laay bàyyi lii ñu ñu bëgg indil ci réew mi muy ay fitna ay rayante ay waxante yu ñaaw du loolu mooy suñu héritage suñu héritage jàmm la suñu héritage mooy comme li imaam Touré wax léegi euh, taxaw fii am yaakaar mu nekkoon néegu ñax mu taxaw woolu yàlla samp fii lii di di jàkka war fi defaale daara imaam dégg naa la su ko El Ba organiser à tout moment ñoo am audience waxtaanee li nga bëgg mu nekkaale suñu fasante kóolare incha allahu taala maa ngi nuyu nag sama yaay yi dëkkee kër gi ñoom day baax maa ngi leen di nuyu ñoom ñëpp ndax cofeel gi El am ci man ñoom sax daanaka li ma tuuti tuuti yëpp saa ñu ma gisee rek papa lañ may woowee. ndax li ma doon turandoo seen waajur wu tedd nag fonkoon njaboot gi ci toogoon fii léegi wax na ne El Ba nitu wërsëg la macha allah ma ne ko ndax ndono la ci maamam Cheikh Ahmad Ba ñu ko denc ci ndànd waajuram jàppoon njàmburam li ma gënoon yéem ci sama turandoo mooy yaram ci mag yaram ak tegginam bëri kersa bëri sutura lool. gannaaw yi la kàddu nag ci la dellu siwaat ci projet yi nga xamante ne nii moom la coalition naataangi askan wi amee dëgmal lii di élection législative yu 2022 yi la dañuy dagaan baatu askan wi fas yéene koo teg ci lu leer naññ ngir képp koo xam ne yaa ngi ànd ak ñoom di leen jàppale nga xam ana lan moo la tax a jóg ak fan ngay teg say tànk. ñun nag ñi ngi am projet projet bi waxuñu pour El Ba jàppale ñu dañu wax nañu àndandoo ak moom amandoo ndam. moom mu wéy di jàppale ñi mu dëkk naataange askan bi la coalition bi tudd ñu bëgg am majorité assemblée nationale waxuma benn député waxuma groupe parlementaire sama xeex jamono ji ak li ma tàllal sama loxo laaj ko sunu borom moom rek mooy maye su waxee waaw jaam yi moo leen moom balaa ñuy tëdd ci lal samedi kenn ku ne day roof li mu décidé moom sunu borom ñun amuñu benn décision li ko li koy finde mooy élection 2012 Macky Sall ak Abdoulaye Wade dafa am benn jigéen boo xam ne Abdoulaye Wade rek moo nekk ci ci xolam nee na veyu élection yi jànq bi nekk ci kër gi te doom ji feebar mu daal ko libeere mu ñibbi mu téye doomam bi muy dem di voté ji nee na mu yóbbaale xale bi pour wax rek ndogalu yàlla bi ñu yóbbu mu dugg ci isoloir bi rek. daal di tànn bulletin Abdoulaye Wade di dugal ci enveloppe bi rek doom ji nekk doo ko dugal mukk yuuxu ne dama ko ragal wallahi ne dama ko ragal doo ko dugal mukk yaay ji làq xale bi jël bulletin bi dugal ko mu seen bëtu Abdoulaye Wade bi ne ko roccil kii laaw dama ko ragal ndaw si jël bulletin bi sànni ko ci mbalit bi génneel ko yeneen ne ko kon tànnal kenn mu ne kii laa bëgg muy Macky Sall dégg nga wax ji de soo gisee ma indi wax ji nag dugguñu ci lii pour pour jël réew mi pour fitnaal fi kenn ñii fi nekk jamono ji nodd nañu sax te te suñu noddee rek imam wax dëgg yàlla mënatuñu yeggale waaye waaye jàppale ne daal suñu suñu lépp mu ngi si seen loxo ginnaaw bu ñu ko dénkee sunu borom ñu fas yéene ànd ak yéen wax ji ma bëgg a wax li li ci ëpp sax ngeen waroon comprendre fi ñu jëm eggalewu ma ko mooy d'abord assemblée bi gañee ko fal gouvernement bu bees parce que ku am majorité assemblée yaay fal premier ministre suñ jógee ca loolu en 2024 suñu coalition aussi may candidat bi pour dem ci présidentielle yi te loolu loolu yëpp dama ko bëgg ànd ak El Hadj parce que élage Hadj war naa soppi Grand Yoff du soreel ci wax ji ndax ñi ngi noddu te dara mënul tegee ci kaw lii yàlla mi nga xamante ne nag moo ñu dajale fii yal na dolli sàmm ñu imaam sa ñaan yii nga fi ñaan yal na ko sunu borom nangu ci barke yonent bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam dégg naa wax ji dégg naa wax bu wér dañu ànd ak élage ci dimbalante ngir mu taxaw taxawaay bu am solo ñu gañe Grand Yoff